parce que man il a fallu que je tombe sur le texte de Abbé Latyr pour ne kii lan lu graaw la Ousmane Sonko attaqué la religion chrétienne ma dem dégg gis ni Ousmane n'a même pas parlé de la religion mais il a parlé du Sénégal il a parlé de dëkk bu nekk ak na ngay doxee mënuñu nangu France am nañuy doxee foofu seen dëkk ñu nangul leen ko ñu bëgg a ñëw imposé ñu ko fii il a même utiliser ce terme France il n'a même pas di que ni duñ nangu chrétiens yi def lii wala lële donc lan lu daloon abbe bi ba muy tëb di dal ba yegg da moom kay wax na ki sax suñu ngën gi mbindeef gi am na lu mu ko ci wax waaye garaawul nettali lu ñaaw day indi kii nii te lii kii wax la suma papa Bamba la tudd Ahmadou Bamba Serigne Touba moo ko uuf tuddee ko boppam j'ai un grand frère ki sappel Marcel un autre grand frère qui s'appelle Pascal. J'ai une grande sœur qui s'appelle Raymond. <laughs> tu vois un peu donc am na loo xamante ni ak koo mën a doon foo koy mën a jëlee bëgg ko dugal fii Sénégal c'est peine perdue da sonal sa bopp jarut nag ñu ciy xuus au nom de mon ami Julien bi nekk ci cabinet Cheikh Tidiane Dieye dem rek ñu déggante ma ko doon signaler benn cas dëkk bu am problème mu forage ñu war a daw kii leen ñuy déggante di war di seq teraanga ak mes autres amis chrétiens mes enfants ils sont à l'Immaculée Conception je suis aimé par tous les professeurs et toutes les sœurs là-bas dañ ma bëgg a boole sax ci seen kii bi tu vois donc loolu la ñu c'est le Sénégal fii on n'a pas parlé de religion bi ñu demee ba xam ni Sénégal est le seul pays ba nga xamante ni biñ demee ba xam ñi religion piège la dañ ne aada ak cosaan <laughs> Sénégal biñ demee ba xam ni religion mën nañ bañ a bokk yonent wala mën nañ bañ a bokk yàlla sax bi ñu gëm parce que euh, euh, laïcité mooy loolu wala mën nañ bokk confrères yi sëriñ bi ñu gëm dañ ne ñoo bokk caada ak cosaan <laughs> donc nañ bàyyi yëf yi vraiment ci caada cosaan dañoo am suñu aada am suñu cosaan ñun tolerance lañ jullit dafay sëy ak chrétien chrétien di sëy ak jullit ñu ci am ay doom di demalante di fekkalante kon war nañu mën a continuer tolérance boobu bu suñu doom yi bu fekkee école bi ma gën a jege wala bi ma gën a doy école la boo xamante ni chrétiens yi ñoo koy ñoo ko ubbi di ko jàngalee ma yóbbu leen fa bu fekkente ni ñoom dañoo bëgg seen doom bi dañu gis ni dañu war a jàng franco arabe ñu yóbbu leen fa te buy ñëw indaale croix wam kenn amul droit di ko stigmatiser naa ko waruloo dugg ak croix laissons les sénégalais je ne parle pas de religion mais nañ bàyyi sénégalais yi ci jàmm ak salaam. ci suñu cohésion bi am Seck rek Abbé Jacques Seck wane na ah, yow. non doo ma kii de. waaw la tax na waaw mais mais mais même ñi suivre si direct bi si taal ñu ngi jël maa ngi lay ziar bu baax a baax Omar Sonko Thierno Sila gars yi bëri ngeen di commentaire ah. ñi aboneegul mën ngeen abonné ci Sen Teranga TV di jégalu baax a baax si seen tur yi ma ah. limu mais yéen ñëpp nga xamante ni yéen a ngi di commentaire ñu ngi leen di baaxal baax a baax euh, daanaka lu gàtt euh, papa euh, père Momar Momar Diop <laughs> ma ko passé fu yoof mu ngi may bëgg a rey mu ngi may bombardé rek <laughs> mu ngi lay ziar <laughs> Omar Diop ma ko. baal sa nee na ma baal sama goro bi puy da nga dëgër bopp mm. sama xarit la de. sama xarit la. ba ma ko passé a moom lu ci bari. Euh, colonel Théodore moo nekkoon commandant escadron monté mujj bu nekkoon au commandement de la gendarmerie Zola suma grand frère la ah man sama jarbaat yu bari ay chrétien lañ layti seen samay jarbaatu bopp laa wax uh-huh. layti seen am na ci Philomène seen am na ci Papico am na ci Papico mu ngi fële euh, xaw ma ban dëkk di béy donc c' est pour dire que voisinage bi am entre chrétien ak musulman ta lañ mais fi ma koy daanelee mooy man du ma bëgg duggaat ci débat wu Ousmane Sonko parce que dañoo transversé débat bi ci religion. moo tax du ma ñëwaat ci propos yi li tax may ñëwaat ci religion bi mooy. que muy les chrétiens et les musulmans en commençant par les abbés et les imams parce que abbé Latir Ndiaye wax na ay imam imam wax beneen abbé waxaat beneen imam waxaat après yeneen imam bu yàggee nag. il faut que ça xam nga lu muy jur beneen mbir. tey la bés bii tey la sëñ fàllu Mbacké ñibbi àjjana tey mooy bésu anniversaire am li tax ma tàmbali ci sëñ Fallou Mbacké tey. Senghor seng ca kaw sëñ Falloo ko waxoon Senghor muy catholique mm-hmm. bokkuñu diine Lamine Gueye di xëccoog Senghor mm-hmm. Lamine Gueye ñoo dem mm-hmm. Senghor ñoo dem sëñ Fallou woo ñëpp ne leen réew mi day Lamine Gueye ak Senghor fi jóge ñoo bokk carte d'identité verte jaune rouge ak étoile dama ne Senghor ko xool te bañ koo piis ne ko seng ca kaw ndax moom laa àndal vingt ans Senghor jiite Sénégal Senghor bu ñëw woon grande tabaski pour solidarité day na ah man du ma jullit waaye maa jiite 95 pour cent wu jullit Senghor da doon ñëw ba biir grande mosquée jour jullit tabaski wala korité du jullit day teg ses am mhm. toog bu julliti julli ba noppi mu jóg def discours am dem yoonam ne loolu mooy corps de solidarité am nga ñëw au plus loin de ça fusti bisan fil hasanat saydatal lil muhsinat mariama foxtil muhinat indal lazi lam yudraki cheikhul xaddi moo ne oh mariama la femme suñu borom moo jël si Seydina Jibril yónni ko mu ëf ci yoon leer gi nga xam ne day defar àddina mu boole sa doom jooju di Isa ibnu Mariama ci maqamay profet yi nga xam ne da leen tànnal boppam 124000 prophètes 313 la yàlla soisir vingt cinq ci biir cinq yi mu ne maa jëlaat 5 yi jël Isa ibnu Mariama muy Jésus Christ quatrième jël Mohamed def ko soo des profet boo jëlee kuréel xasida gi mu di jàng Mariama فصيب دينة الله أمره لا صدام روكي جنگ بسم الله إيمان أمره لا ما مريم سي وي لما يوقفوا mais euh, ñun muy jullit muy catholique. Euh, képp ku ci génn àddina. wala mm. bu dee jullit. dañ lay gunge ci nees. Mm. ban nit lay denc. incha bu dee bu dee bu dee catholique bi laa ko wax bu dee jullit bi même chose. Mm-hmm. dama ne dafa am loo xam ne yàlla moo ko fi def. fi ma lay wax nii. Mm. xeex naa ci privé catholique dàq nañ ma ñaari yoon. ma gagné inspection. tëj nañ ma kaso ci xeex combat fii Sénégal. loolu mënu fi am mënu fi prospérer nañu comprendre loolu. c'est un débat qu'il faut qu'il faut tourner cette page là et avancer. non non moo tax ma ne sax jeex na moo tax ma ne sax jeex na rek damay remercier rek. vraiment tey Julien Jouga gis nga li mu waay. man tey man maa kontaan ci kilifa. te c'est une occasion aussi. ma ne ko baal ma yàq naa xam naa ne mosu ko sax seetaan parce que. c'est pour dire. Euh, oui ne loo lu nee di wax lu ma neex. nouvel type de teg de sénégalais. passeport type plateau bu ma euh, naa ko lu na problème bu xaaral ñëw donc génn nañ foofu. c'est que ñëw tàggoo rek jaar ci kilifa. parce que du tere nag. su ma amaatee occasion bu mënu ma waxaat ci moom. danaa ko wax ci moom mais tey. dama koy baal wax ci biir xol. ndax dafa laal foo xam ne. sama xol da cee tooy. donc lépp loo xam ne def naa ko te ma yëg ko ñàkk koo yëg. ak mhm. képp kuy Sénégal ku may déglu en général. Mhm. Mhm. maa ngi baalu àq. di wax jërëjëf Serigne Saliou mettee sama xol seet. naa la baal naa la baal naa la te baalu naa la man it. baal naa ah, euh, fi ñëwaat parce que tu sais xam nga comme ni ko kuy waxee. gis-gis yi mën nañuy wute. mais lépp nañ koy teg ci respect. temps puy boobu ba léegi mm-hmm. euh, dafa mel ni presque ñun ñett ñooy bokk fu ñuy waxee buy am feneen fu ñuy waxee mais teg nañ ko ci respect ba nga xamante ni au moins mm-hmm. nous avons respecté les téléspectateurs yu toog di taataan di ñu déglu. gis-gis yi day wutee c'est normal mais saa su ne rek ce que je demande mooy na humain. Mhm. donc je serai. saa saa saa bu ko kiiyee damay ñëw. nous allons parler avec ne serait que bu dee benn sénégalais buy connecté. buy comprendre et ça c'est important. Mhm. jaajëf merci beaucoup <laughs> euh, suñu grand kilifa Guèye. kontaan naa. maa la gën a kontaan. tey wax na ko. tey wax na euh, plateau bi tey dafa neex. c'est normal. parce que non moom li ko si neex mooy yéen ñett ñi yéen a bokk ay gis-gis loolu moo ko si neex xam moom. non non nga bi ñuy macha allah macha allah a moo war de débat boobu allah dinañ def lu ñu mën a ci ndax waaw amoon ñëpp. débat yi moo war di am. ça quoi c'est ça xel di xelli Sénégal jën ci njariñ kuy génn ci plateau kontaan ah, et aujourd'hui Sénégal benn débat lañu ñu war di xóotal muy le sénégalisme mm. rek la ñu soxla yenn débat yëpp daf ñuy tàddal nañu xeex ngir réew mi dans le respect Sénégal jëm kanam. ma nuyu la génération originale citoyenne. waaw sama ñu ci mën a wax li ñu ci mën wax te loolu nag puy moo ma ko faloon. waaw moo ma ko faloon suñu dernier plateau. lu ma ko fal lu ma ko moo <laughs> di moo yaay kilifa. Euh, plateau def na donc. au nom de au nom de tous ceux qui sont là. je euh, aux internautes. Mhm. que ñun ñii ñëpp. Mhm. defar. Mhm. gingi waxtaan. yedd yeete moo kese moonu tax a jóg su fekkoon esprit yëpp benn la mm-hmm. su fekkoon point de vue yëpp benn la mm-hmm. mais soxlu kenn yow da ngay woo géey rek mu ñëw toog wax lépp mm-hmm.